benn Pierre benn Pierre saar wàll ci lindiin di bataaxal bu jëkk bi yàlla may Pierre mu bind ko man Pierre ndawul Yeesu Kirist maa leen di bind yéen doxandee mi tasaaroo ci diiwaanu Pont Galasi Kapados Asi ak Bitini yàlla baay bi tànn na leen ci li mu leen xam bu jiitu te sedde leen boppam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 bi ngeen xamagul yàlla waaye na seen dund gépp sell ni yàlla mi leen woo selle ndaxte mbind mi nee na selli ndaxte ku sell laa ginnaaw nag yàlla mi ngeen di wooye baay mooy àttee jëfi ñépp te du gënale kenn saxleen ci ragal ko diirub seen ngan ci àddina xam ngeen ni yàlla jot na leen ci seen dund gu tekkiwul dara gi maam ya nekkoon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 waaye kàddu boroom bi day sax ba faaw te kàddu googu mooy xabaar bu baax bi ñu leen doon yégal benn kon nag dëddu leen gépp coxor gépp njublaŋ naaféq ki ñaan ak jëw ginnaaw ay liir ngeen yuy doora juddu te mos ci mbaaxu borom bi nàmp leen ci meew mu sell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 doj la wuy fel nit di xeer wu koy fakastal dañu cee fakastalu ndaxte gëmuñu kàddu yàlla te loolu la yàlla dogal ci ñoom waaye yéen xeet wu yàlla tànn ngeen di askanu saraxalekati buur yàlla askan wu sell ngeen di mbooloom yàlla ngir ngeen yëgle ngëneelam moom mi leen woo ba génne leen lëndëm gi tàbbal leen ci leeram gu yéeme gi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 waxuma laabal sobe si taq ci yaram waaye wuyu yàlla ak xel mu dal li nu may mucc googu mooy ndekkiteel Yeesu Kirist mi yéeg asamaan toog fa ndejooru yàlla mu tiim malaaka yi boroom sañ yi ak boroom doole yépp benn Pierre gannaaw Kirist nag sonn na ci yaramam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 waxuma ci sañul bañ waaye di surga yàlla ci xol bu tàlli ngeen def ko ak xol bu laab te bañ cee séentu alal bu leen noot ñi leen yàlla dénk waaye ngeen nekk ay royukaay fi kanam jur gi noonu waxtu wu boroom gétt gi feeñee dina leen jagleel kaalaak ndam guy sax ba faw noonu itam ndaw ñi